borom tasawuf laa ku sell ay jëf laa sëriñ Modou Mamoune Mbacke borom xar baax la ku sell ay wax la sëriñ Modou Mamoune ka nooyoon lewet ta neexa àndal ta sàmm ay waxam ta neexa dendal sëriñ Modou Mamoune daa dëddu woon adduna ba far ko defam noon daa soppoon alxuraan daan ko wàcc aw yoon sëriñ Mudu Maamun Mbàkke daa soppoon lislaam ba ko def muy wéttalam tëgëm sëriñ Tuuba ma doon ab sëriñam sëriñ Mudu Maamun lislaam da ko jooy ba far wakiilu ne asbunaa Allaahu wa ni'mal wakiilu lislaam bu doon seen jëmm nu xam ni dem na bu doon ni tool nu mën a waat ni booy sëriñ mu du maamun Mbàkke moo nu daan woo ci yoonu yàlla ak darajaay sëriñ bo xam ba yàlla maam Seex Anta ko waxoon ci moom yaatal sëriñ mu du maamun Mbàkke fu man dem lislaam la doon xëyandal yaa waa seen ja Bamba waxoon ca way wa moo yàkkali mbirum sëriñ Modou Mamoun Mbacke loolu doy na xarwa daarul jalaali firdawseek daaru salaam sëriñ Modou Mamoun danga koo xaro ci lislaam ku dib jullit war na la jooy ci lislaam lislaam di jooy li feek ba sëñ Mudu Maamun ngëneel yaam ca bisam ba keemaan naa ko waxaat ndax yàlla def ma ndaanaan maam Seex Anta tax nga mel ni nga mel ngir nuru woo ku ko moy jikkoy sëriñ Moodu Roqaya yi nga làmboo boole ko noppi maam Seex Anta yaa noppi yaa maanu ta yaa nu saf noppee gore te waree luy laaji maam Seex ibnu Sëriñ Moodu Rokhaya lii tax nga mel ni nga mel ngir nu ruwoo ku ko mooy jikkoy Sëriñ Moodu Rokhaya yi nga lambo boole ko noppi maam Seex yaa noppi yaa maanu ta yaa nu noppee gore te waree luy laaji maam Seex nga muñ kan nga taab yaaram nga yaa ñàkk si ki yow yaraanga maam seexante yaa yaatu yaa mën a muñ yaa noppi yaa bari jom sëriñ Moodu Maamun Mbàkke togg jox sëriñ Moodu Roqaya Mbàkke jox la ngay dana le allahumma salli ala sayyidina